ñoom ñii nga xam ne ñooy njabootu sëñ bi sëñ Saliou nett na ma ko ay yoon <coughs> daf ne dafa euh, masa woo sëñ Basirou ak sëñ Mour Moustapha dama xamul ak kan ak waaye xamal leen ne yéen seenub liggéey eh, ci nit ñi laa ko jëmale waaw seenub liggéey ci nit ñi laa ko jëmale bi mu waxee loolu nee ñu génn dem biñ génnee ba ñëw ba génn ci biti ñu waxtaan ci seen biir ne waaw man kon lañuy liggéey dañuy liggéeyloo ci nit ñi waaye léegi bu ñu buñ buñ tërbiyaa nit ba ba war a faj aajoom noonu nuñ koy defee ñu discuter ci tuuti xalaat ñoo naan delluwaat laaj ko ñu delluwaat biñ agsee ci ci euh, kii bi bunt bi xam naa xam nga dafa xaw a xaw a rag lu tuuti ñëwuñ ko lool kii na dugal kii na dugal ñu am ak kuñ rek ñu dugg ak si daal ko ne loolu ma ñu waxoon léegi dañuy xaar ba xam ku ku ku ñu yar ba noppi mu ñu faja ajo mag ñu koy kii mu ne leen loolu seen yoon nekku ci da ngeen di wëli rek ku ma ko may duy loolu mooy xuloo bu jumlati lazina aflahu li tawajjahat wa rabbil muslihu ñi nar a texe ñëpp seeni xol dëgmal lañ ma eh, waaye nag yàlla mooy kiy def kiy defar mooy kiy duy mooy kii mottali mooy kii feesal lo loolu loolu euh, kon da ci déggee ne kon seenub liggéey ci nit ñi la jëm mooy képp ku ñuy tudd di ko tudd rek su liggéey ci nit ñi la war a dem jàpp ne sa mission ci àdduna mooy jubal nit ñi ak fexe ba ñëpp am tawfeex am ak jub te ko siraatal mustaqim ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom la nekkoon di ko liggéey ba yàlla fay ko ci léegi li fay yi nga xam ne mooy moo daj àdduna bi yëpp nii fi ne kon nag leneen lu ko waaye di wuutoo ak di ko ci liggéeyale daa war a dugg ci loolu. defar boobu nga xam ne moom la waxoon ne moom la leen di liggéeyloo ñoom njaboot gi yàlla defaloon na ko ci tawféex ba euh, bàyyi na ci waaru yaatu ba euh, loolu ñu mbokkal Sëñ Tuubaa ñëpp nanguloon ko ko ba euh, mboolem njabootu Sëñ Tuubaa yëpp seeni seeni doom wala seeni sët ñu ngi woon ci daaraam man xam naa ci lu bari daanaka ñu bare bari xale yi foofu euh, yi ak ñu bare bari foofu ngay xamante ak ñoom nga xam ne téere bu ma def mu nga tudd léegi maanaam mooy jantub jamonoom tudd naa ci daanaka cheikh si sëñ bi ñu nekkoon ak sëñ bi ñu gën a ràññiku ñëpp seeni seeni njaboot ñu ngi woon ci daara yi sëñ Saliou wala seen i sët wala seeni i doom maanaam def naa ko benn bunt boo xam ne ñoom ñëpp lissi naa leen dugal leen ci loolu di tekki ne kon maanaam loolu liggéey boobu maanaam nanguloon nañ ko ko yàlla yi dafa ko ci tawféex ba mu bay ci waaru yaatoo yaatu woo xam ne macha allah eh, ñëpp teg nañ seen bët. moom liggéeyam foofu la gën a jëm yar jàng ak jàngale. ak liggéey ak tegu si waat mu saxi ba waaw jikko bi doon ko mm, baax doon ko maandu doon ko sàmm maanaam koy moytandiku ay tooñ doon ko euh, yeewu itam nga xam ne ni ñuy waxee léegi rek naan diw sëriñu sëriñum nawle la walla dafa sëriñ sëriñu kese la euh, loolu yàlla dogal na ku yewu la woon ci àdduna te xamoon maanaam ni muy jaxasu nit àdduna yi ak pexe yi nit ñi lal ak ni mu koy teggee dinaa ci joxe rek benn misaal boo xam ne dafay am solo lool ci yi ñu dëgmal ci kanam. élection yi nga xam ne mooy ñëw dafa dafa am benn waay bu ma sa ñëw ambassadeur la woon euh, nekk ci kër yi mu ganale ko mu yànd fi ba ngoon muy dem taari ko damaa dama dama dama am nga bëggoon a laaj ma ko mu ne ko damaa gis élection yi dëgmal si kilifa yu bare bari joxe nañ ci seen kàddu ba xam nañ fi ñu féete waaye yow dégg guñ nga wax ci xam guñ kan nga faral euh, léegi ma bëggoon a xam nag yow ki nga àndal ci ñi ñi nga xam ne ñuy xëccoo réew ñu daal bëggoon na ma sañoon xam ko bala ma dem mu ne tekk ba ci yàgg mu ne ko ñiy xëccoo réew mi kenn ku ne mbooloo ma ne ci sa ginnaaw dama caa dama caa am man itam kenn ku ne ñi nga jiite am naa ci ak njaboot te loolu mooy li wér ñaar fukki nit yoo dajale ci réew mi faaw dina am si murit mboolem kon ku ne ci ñoom ñu ñenn ci sa ginnaaw dama caa am ak njaboot moo tax mun maa faral kenn fi mu ne daal di ko kamay faral daal nga xam ne moom moom laa bëgg mooy ki kii réew mi bëgg nga xam ne njaboot gi boo leen boolee kañ àndal kooku laa àndal loolu nag dañ koy xame mooy élection yi jaar yoon am li ñuy wax safafiya safafiya mooy transparence mu nekk yu libre yu leer su ko defee bu boobaa kuñ ne moom lañ fal danaa xam ne kii mooy ki réew mi bëgg kookaa nag su boobaa mooy kamaa dal kon fii ñu toll li ma li ma li ma li ma li ma bëgg li ma ñor daal mooy mu na doon yu leer daal di teg loolu la ko tontu loolu kon li nga ciy déggee mooy ni mu amee woon diplomatie ak ni mu yewoo ak ni mu ni mu xame euh, àdduna am na waa ma sa ñëw ci ñooñu ne ko dafa am euh, liñ may bëgg a fal woo nañ ma ba wax ma ko sax waaye nag damay xel yaar fi ne ma bëggoon nga xelal ma ba xam lu ma ciy def xam nga léeg ñu laaj laaj wax ne ni ñuy bëgg loolu ko waa ji doon laaj fi ne mawqifu maanaam gis-gisam ci ca loola lay bëgg a xam rek te xamul fu mu koy jaare mu jaare ko foofu léegi bi mu ko waxee loolu daal di ne ko nag maa fi fi ma toll daal maa ngi mel ni koo xam ne dafa jëm ci ak kàmb teg naa benn tànk bi benn bi féete ginnaaw léegi nag yow lay déglu rek loo ko waxee xam boo koy wax lu ko ñorul day jëlale mel ne lu ko tontuwul mu demaat bay tàggoowaat daal di répété waat loolu mu ne ko xam naa li ma ci xam ne mooy noonu nga def da koy def rek boo gisee loo xam nga jéggi tànk bi jàll boo ko gisul nga nga jéggi arrière daal dafa euh, bindoo woon noo xam ne wet bi moom daaw ko def lu bari waaye na wet bi day hmm, moo tax day mel ni euh, moom ki ko xam dëgg dëgg daal <coughs> xam ay gisi ak mag ay ay ay la muy jàppe mbir kii ñëw ne la sëñ Saliou nee na ma nàngam moom bu fekkee euh, moo ko wax te nga miin ko yow da nga xam ne lii moo ko wala wala wala waxu ko moo tax daanaka ci bare bari ci ay yuñ daan wax naan moo ma ko wax wala nangam nangam di ay sos daaw ko daaw lu mu ko daan weddi néew na daal néew ngay gis ñu ne ñu ne ñu ne mu euh, dara waaye nag weddi maanaam li mu bëgg a wax mooy dem ca rajo ba wala ca nangam ne ne waxuma nangam ak nangam waaye nag yow bu la jaaxalee ba nga ñëw wax ko ko ne ko nee na nangam nangam am na terme bu mu daan wax boo xam ne mënul nañ ko ci moom loolu mooy yëguma fu ma ko ko waxee moom dana ko weddim noonu daal la daan ci diggam ñi nga xam ne ñooy yenn tafalekat yi ak kii weddi daal daaw ko def lu bari moo tax daanaka yu ci bare bari euh, noonu rek lu ko daan bàyyi. waaye yàlla def na def na def na ko tawfeex nag fa bari bari xam nañ ko xam mm, la nga xam ne lam la muy wax ak lam dul wax dafa am ku may natt nee na dafa dafa am benn bis mu dem kër suñu Abibu Mbàkke mu mag nee na ñuy julli timis fekk julli nañ ba noppi muy naafi la ni nee na mu toog ak ay gaa yi ñuy waxtaan am ko naa man de dëkk sàngam la barab sàngam laa jóge suñ saaliwu dana diw sàngam ko gis sa yaram araam na sawara mu doon lu siiw lool ah fekk sëñ abi mi ngi naafi la <coughs> nee na sëñ abi bu mm, daal di sëlman nee na ma sax jàpp naa ne sëñ abi bu déggul lañu wax nee na bi mu sëlmanee daal dañu fa tas nee sëñ saaliwu bëriwut wax de daal di <laughs> waaw kon loolu ci la ko yàlla defal rek nga xam ne moom daawul weddi waaye ku xam loo xam ne lii waxu ko itam da nga daal di mën a weddil loola nga ko xam ne ko naa da a daal di weddil ci sax moo tax kon daanaka loolu koo la fi waxee rek du man xawma lan àggu fa yooyu mel noonu daal xam naa daal am na ci falsafa bu wér bu mu ci amoon boo xam ne euh, ba tax noonu la ko noonu tuddee moom